député yi maa leen di nuyu tey dafa nekk suur na boo xamante ni bu am solo la ci réew mi muy suur boo xam ni le président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye dafa yónnee ci assemblée nationale une proposition boo xam ni dafay dindi ñaari institution yi nga xamante ni dañuy yàq xaalisu réew mi ndax jàpp naa ni ñun ñi nga xamante ni ñoo nekk ci coalition wàllu intercoalition wàllu Yewwi c'est une demande sociale woon bi ñuy campagne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

tey jii may wax ak ngeen continuer bëgg a jëf ñaaw jooju noonu duñ ko nangu ndax tey boo xoolee projet bi demande sociale la askan wi ñoo ko soxla ñoo ko sàkku 2012 Macky bi muy tas Sénat tàgguwul kenn te dafa waxoon xaalis bi du ko jël dugal ko fan la ko dugal ñëw indiwaat ñaari institution yoo xam amul mu njariñ monsieur ngi nekk 180 milliards francs mais 180 milliards francs yooyu monsieur ministre xaj na inondation bu Touba xaj na si ndoxum neexum Touba mi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 loi bi nga xamante ni dafay criminaliser nguur jigéen benn bokkaar moo ko bloqué ministre du président Assemblée nationale depuis le 24 fin laa ko déposé woon lan moo tax ngeen bëgg ne gouvernement bi ko déposé waat dama déposé ko pare li gën kay mooy génn leen ko ñu wote ko mu jeex benn yoon bu fekkee li ngeen di wote dëgg la si yéen kon jàpp naa ni loolu amul sens monsieur président boo xoolee tey jii may wax ak yow ci suba bi ma xëyee déposé naa ni day def peine de mort loi baa naa mi ñaar yooyu yëpp mi ngi seen kaw taa bu yéen askanu Sénégal un dégg xale yi indi livre blanc man livre rouge laa indi mi ngi le livre rouge livre rouge yi boo ko xoolee ñaaw ji de fukki at ak ñaar yëpp ñu ngi ci livre bi dinaa ko publier incha allah fan yi armata dinaa si wax ñoom léegi le livre rouge bi bokk na si le scandale judiciaire scandale foncier emprisonnement torture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

ba pare ba pare mu jàpp leen tëj si kaso parce que loolu ngeen mbir too yéen yéen a sàcc xaalisu réew mi yéen a toroxal askan a toroxal kilifa diine yi yéen a nangu seen passeport diplomatique yi ba pare ngeen bëgg nag dëgg fi ba toog di toroxalaat askan wi loolu duñ ko accepté tey duñ ko accepté ëllëg kon monsieur le ministre yóbbante la boo xam seen demande sociale pour le peuple sénégalais mooy nan tas assemblée nationale ba pare ñu jàpp leen tëj si kaso bi parce que ñii waruñu yéen warut leen dox dëkk bi yéen yéen a sàcc xaalisu réew mi yéen a rey nit ñi kon jàpp naan tey Ousmane Sonko vous merci